dem bay wax ne dañoo am ulcère maanaam ngir bañ a woor am na ñenn ñoo xam ne bu ñu wooree dañuy jàpp ne ñoo moom nit ñi maanaam bërëbu liggéeyukaay yi nga xam ne fa la ñu nekk heure ba nga xam ne moom la ñu war a liggéey maanaam du ñu ko sax respecté ñenn ñi nag bu ñu wooree dañu naan lisim ñenn na am na ñenn ñoo xam ne dañoo jàpp ne woor maanaam xiif ak marqué sa am lenn loo xam ne maanaam moom la baaxoo am na ñenn ñoo xam ne nag maanaam xëy di carte que lido la ñuy yendoo ngir nag ray temps bi yéen kaay gi di l'observateur nee na li nga xam ne nag mooy bërëb yi ñuy carte ci Sénégal jamono ji ñoo ngi ci koor gi te dafay fees del te nag loole munta ànd ak koor yéenekaay gi di Dakar Times ak Vox ak réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñi nga xam ne ñooy bi ni ki démb janoo nañu ak taskatu xabaar yi waaye nag ñoom nee nañu élection locale yi ci atum 2021 bëgg ñu amal ko ci te atum bi nga xam ne majorité bi ñoo ngi koy wax ñoom nee nañu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg yi war na ci atum 2021 kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu opposition bi en tout cas a li nga xam ne mooy calendrier électoral bi yéen kaay gi de la bi nee na ba neexul waaye nag jamono ci opposition bi ñoo ngi sëkkatal nag Macky Sall ñoo ngi koy met en garde ñoo ngi koy dànkaafu yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ak Dakar Times ak l'Observateur enquête las xëy di ñu xibaar naan ñu Abdoulaye Diop mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon ministre bi ñu dénk wàllum budget si Sénégal jamono ji maanaam moom moo jiite commission de l'union économique et monétaire ouest africaine maanaam nee mo UEMOA yéen a kaay gi nee na nag ma nga fa remplacé ki nga xam ne mooy Abdallah Bourema moom nag mu nekkoon ay jamono ministre bi ñu dénk wàllum économie ak wàllum finance ca Nigéria yéen a kaay gi nee na en tout cas li am mooy njiitul UEMOA dellu si wan ci loxoy Sénégal yéen a kaay gi de laas xibaar investiture bu Denis Sassou Nguesso yéen a kaay gi di ak enquête ak Vox Populi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ay faux médicaments yu baree bari yoo xam ne bi ñu ko xayma ay milliards yu sakkan a sakkan la sûreté urbaine commissariat bu Ndakaaru daal teg loxo fi nga xam ne mooy padduwaa nee ma ñoom Baara Sangaré yéen a kaay gi di nee na am na lu toll ci juróom benn ci nit ñoo xam ne teg nañu leen loxo ca wàllu woowu ñaar ñi ay pharmacien lañu yéen a kaay gi di li quotidien nee na police def na liggéey bu rëy ndax a kaay gi xabaar naan ñu fraude bi nag daat nay jéggi dayo doy na waar loola li nga xam ne mooy ay seringue la ak ay médicament diabétique la teg loxo fi nga xam ne mooy padduwaa yéen a kaay gi nee na ñaar ñi nga xam ne teg nañu leen loxo te ñu ay pharmacien maanaam ñoo doon distribuer li nga xam ne mooy mbir mi kenn ki Aliou Bala tudd kenn ki Mansour Niang yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu ñoo ngi ci ab garde à vue te am na ñeneen ñoo xamante ni tamit ñoo ngi leen di ñoo xam leen tey a kaay gi di esat xëy wax bi nga xam ne nar naa am diggante Manchester beneen match bi dox diggante Real Madrid ak Chelsea yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Bécaye Mbaye moom nag nee na làmb ji dal maanaam mënuñu nag di fi nekk di fi tëgg ay juróomi mbër kese naan ay VIP ndax làmb ji nag dafa war a yaatu waaye nag buñ ko bëggee tënk ci juróomi mbër rek di wax ne ñooñu ñooy VIP loole munta dem ndax Balla Gaye numéro 2 war naa mën bëre ak ki nga xam ne mooy rëg-rëg Bombardier war naa mën a bëre ak rëg-rëg ak yeneen combat ku ci mel ni Sa Thiès Boy Niang ak Guy Gi ak Garga Mbossé ñii ay ndaw lañ yoo xamante ni VIP yi war nañu leen a mën a jox gëdd maanaam laaj leen